làmb ji actuellement ni nga ko gisee yan mbër nga jàpp ni ñii moom samp nañ leen te caaxaan sempiwu leen. waaw làmb ji ku ci mel ni Modou dañ ko samp. Hmm. Modou dañ ko samp te caaxaan sempiwu ko Modou Lo dañ ko samp caaxaan sempiwu ko. Balla dañ koo samp mais samp boobu moom mën naa dañ. bu Balla Gaye mën naa dañ. bu koy dindi. yomb na jafewul sax. lan moo tax nga ni Modou Lo mën na deñ mënul deñ Balla Gaye mën na deñ kon sëñ bi mbaa du yow da ngaa am koo ci ñaanal. déedéet wallaay sax man raar ay mbëri mbappat laay ëpp lu may sampal parce que ñoom ñoom man village laay ëpp lu may nekk dafa sampalee ay mbër ñu ma fay fekk. yaa ngi dégg ñoom mbëri bëru si lu may jëflante ñoom mais dama xam mbëru samp dafa bari foofu ñu ma fay fekk ñoo xam ne ay kilifa lañ ay sëriñ lañ nekk fii si réew mi ñu leen di samp sant lool foofu lañuy ñëw man ma samp ma samp leen. Balla Gaye ak Modou Lo ak. ak samp la dañ ko samp si nag bu ñuul. Eumeu seen si nag bu ñuul Modou Lo nag bu soko kii bu sokolaa. yow loolu koo gis walla da dañ laa liggéeyloo wala da ngaa toog rek euh, gis ko ci say bët. Euh, xam nga bi maanaam man mi dama nekk ni ko xamante ne daanaka du ne lépp rek laay faral di wax mais bëri na tey ji ñu may fekk fële ca sama village ba ay kilifa yoo xam nañ leen sant liggéey fii ñu ñëw fa fekk ma dama léegi léegi ma jël defaral leen jox leen ñu ñëw. Hmm. yaa ngi dégg moo tax fii lu ma la fi wax rek jàpp ko waaw lu ma liggéey la man lu ma liggéey rek xam naa ko te mën naa ne lii nii nii nii laa ko liggéeyee. xam nga saison wu làmb kañ lay ubbi kañ lay commencé waat làmb ji demaat ci seen activité comme ni mu meloon. làmb ji. Hmm. làmb ji kooku mënuguma see dugg parce que dama nekk ci mbir moo xamante ni. moo xaw a ëpp farata làmb kum jamono ci waaw moo tax moom duma ci nekk di ci waaw non même bu dul bi sax dama nekk si si askan wi.